waxtu toftal na ñaari simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaar yi ñu doore ko nag ak xew-xew bu ñëpp di waxtaanee euh, ñu dem fekki Cheikh Diop ci bu mu jokkoo gi Cheikh euh, mu ànd ak euh, jëwriñ bi ñu denk wàllum yoon ak ay yoonal hôpital Aristide Le Dantec ma ngi fa yëkkati ay kàddu foofe la ñu doon amal levée du corps ñaari détenu ya faatu ca hôpital bu Rebeuss ñu lu jëwriñ ji ak Cheikh Diop. gis naa yi waxtaan naa ak détenu yi dugg naa ci chambre neuf bu ñu ne wax moo gën a compliqué effectivement compliqué na mais ñoom ñëpp kenn waxuma ne dafa dañu ko traumatisé wala dañu ko def lii wala dañu ko def laa dañuy mën ne ñoom lenn rek la laaj mooy que nañuy seetaat circuit électrique yi pour que mu bañ amaat foofu te loolu mun nañu ko comprendre li ñu laaj mooy tam mooy que ñu dimbal leen ci longue détention yi te incha allah loolu dina ci taxaw gis naa tam que effectivement am na manqué nañu ay la ay dara directeur bi daf ma ne justement mu ngi nekk ñu di recevoir ay dara ay la dama ko ne lu mu recevoir bu manqué na ma ko wax. incha allah dinañ ci taxaw pour mottale matelas yi pour effectivement mottali draps yi loolu rek laa bëggoon wax di remercier tout le monde. Euh, prison euh, bi nga xam ne nañ ko am nañ waaw prison boobu dem leen laaj bu ubbee ngeen dem seeti ko dangeen xam ne bu ko gisee que gouvernement Sénégal président Macky Sall fàttewul détenu yi da ngeen gis ne effectivement que. ay conditions conditions particulières ñu fi nekk fii conditions yu baax la parce que man daawoon naa fi ñëw il y a vingt ans mais bu mu fi ñëwee tey reco reconnaître ma euh, euh, prison bi tellement que effectivement def nañ ci ay investissement yu bari gis naa cellule chambre 48 boo xam ne moo gën a moderne boobu cellule amul rien à envier au cellules dans des prisons des pays développés je le dis parce que gis na seet na ko donc euh, boobu euh, prison def naa ne aux alentours de cinq cent personnes yooyu dafa nekk ce qui fait que ah, dana dimbal ak Koutal beneen prison tam bu bees la ce qui fait que dana dimbal pour effectivement décongestionner sur population bi euh, def naan def naan incha allah fii ba de mois maximum prison boobu dana ubbi incha allah incha allah Euh, Fati euh, ngeen déggoon jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu yoon fii ci réew senegal Sénégal mm-hmm. kàddu yi nga xam ne euh, daal dina koy yi mm-hmm. li ci gën a fës moom moo di Euh, prison ba nga xam ne moom moo nekk ca Sébikotane fii ñaari weer nañ ko daal di ubbi mhm. ngir rek euh, daal di gën a wàññi askan wi nga xam ne euh, dañ leen xañ ngalalu féex te ñu nekk fii toll ci lim boo xamante ni mhm. dégg na dégg na dayo mu nekk jëriñ bi nga xam ne moom lañ dénkoon wàll yoon mhm. jamono yi nag mi ngi génn fii nga xam ne moom moo di ci rëbës ngir rek daal di delluwaat Euh, ginnaaw visite bi nga xam ne rek euh, amaloon na ko te mu jàpp wax nekk ne rek njiitum réew bu Sénégal euh, moom moo ko ko santoon Fatou Dieng Cheikh Diop ñu sant ko gërëm ko mu doon taataan euh, kàddu yi jëwriñ bi ñu denk wàllum yoon ak euh, yoonal mu teewoon tey jii ni mu ko waxee euh, ca hôpital Aristide Le Dantec fo Le Dantec foofee la ñu doon amal levée du corps Babacar Diémé ak Cheikh Ndiaye jébbal nañ leen nag seeni mbokk di fàttali rek ne ñaari gune yooyu ñaari waxambaane yooyu ndax kenn ki mi ngi am fukki at ak juróom-ñett keneen ka fukki at ak juróom-ñeent ñi ngi ñàkk seen bakkan ca Rebeuss ci chambre 11 foofee nag xam ngeen ne euh, dafa am rek nag euh, ab euh, mbir mu fa amoon muy ferñeent yu doon bawoo ca ventilateur ba nekk ca néeg ba di dal ca seen kaw ñu ne nag autopsie bi li mu wane rek mooy courant bi nag moom moo leen maas gis ngeen dégg ngeen jëwriñ ji itam kàddu yi mu wax moom ñu ngi doon wax sax naan day dem ca kaso ba mu xamle ne dem na ca kaso ba moom jëwriñ bu ñu dénk wàllu yoon ak yoonal Euh, moom nag euh, loolu rek euh, di xibaar yi tukkee nag ci ñaari ñaar ñooñu faatu ca kaso ba nekkoon ca chambre 11. observatoire bi nga xam ne sax ñoom ñooy toppatoo lépp lu jëm ci àq ak yelleef ñu caabi féete gannaaw ne ñu nag ibbi nañu ab enquête ngir rek daal di xam mbir mi lu ko waral te itam am nañ seeni ndaw ñu ñu yebal foofee ca diwaanu rëbës jëwriñ bi ñu denk wàllu yoon ak yoonal dégg ngeen ni mu ko waxee nee na Euh, nekk ya wala boog foofee ca rëbës nekkin yi baax na lool nag du gis-gisu euh, kenn ku fa génn bu yàggul benn weeru kaso lanu ko tëj mu bokkoon ak nekk ñaar ñi faatu ca chambre 11 moom it ndaw la ñoom la mu xamle rek mooy nekkin woo metti na euh, te itam jafe-jafe yenuy dund ca kaso ba metti na Alhassane Ba ak Gervais Yao ñoo tase moom. fekkee naa ko xew-xew bi ci kanamam la amee ci biir chambre 11. bu kaso bu rëbës mu ngi door a génn kaso nag wante nee na bi xew-xew bi am ay minuit yooyu ñoo jotoon mu nekk lu jéggi dayoo. yaa dégg bi affaire bi amee nag ñoom dañu teewoon weñ bi waaw parce que courant bi ñaari booy yi parce que niñ dugalante kii day bopp bi kii tëddee bopp bi nii yaa dégg parce que paquetage bi quoi dañuy paqueté waaw noonu la ñu tëddee paquetage bi mais am na ñu taxaw quoi parce que amuñu place. courant bi ni mu doon maasee ci biir néeg bi. buuxante am ci ku nekk di jéem a sauver boppam moom ndaw mi nag muy décrire li nga xamante ni jotoon na xew ci biir chambre onze bi nee na nag dañu obligé woon moom mi ci boppam sax ñu jël ay bool di ko tëgg ngir yee garde pénitencier yi. bu ñu jàppee weñ bi affaire bi xaw ko concentré quoi ko concentré loolu dafa da doon kii quoi da doon kii ba mu kii parce que kenn sañu ko laal amuloon bant boo xam ne mën nga koo diddi xaw ko sauver xam nga parce que bant moo ko mën a sauver mënoo ñëw yow mi boo ko laalee sax yow tam tam nga demaale parce que loolu ñun ñëpp naroon yaa ngi dégg on a obligé man maa mujjee jël bool di dóor di dégg comme taajo bon xam nga gars yi pour ñu bruit am yuuxu naa xam nga gars yi di ma saaga ndey parce que xam nga rek chef de chambre yi quoi lu may yuuxu parce que garde yi war nañ teel a ñëw ñoom tamit ñu ngi toog fële seen couloir xam nga ñëwuñu ba booy xam loxo nii man xamoon naa ne mooy loolu parce que dama yuuxu yaa ngi dégg ah gars yi xam nga rek bruit bi amul lu ñuy yuuxoo waaw yuuxu bi moo la doon déranger en même temps tamit gars yi ñu ngi doon maas ko laal mu dañ tiitoon amuñ fu ñu génn c'est fermé amul foo te espace bi dafa magasin. jaaro bi mu takk ci loxoom nee na xaritam bi di Cheikh Ndiaye moo ko ko may moom mi nga xam ne nee na jot nañu xamante foofu ba daanaka nekk sax ay frère bi garde bi tijjee sax gars yi dañ ko yóbbu parce que gars yi yaakamti woon nañ génn dañ ko fël mu daanu garde bi si boppam. am ñoo xam ne yegguñu sa lu xew parce que dañ doon nelaw. yaa ngi dégg léegi ñaari booyee bi affaire bi amee garde si lañ ñëw génne leen iloo ñu daw directeur infirmier ñu teg leen ci biti noonu si bi fi ñu def cours quoi maanaam génn comme genre récréation quoi waaw foofu lañ leen teg ñu xool ndax dem nañ bu yàgg ñu war leen dawloo infirmier ñu teg noonu di xool ndax ils sont ñu ngi dund wala waa waaw ñu kii parce que kenn ki fur moo doon génn si gémmiñ gi kan la ci ñoom nekk euh, Tiwaan Pël moom moo la may bag bi nga tag bi waaw moo nekk ni bag bi moo ko jox wax dëgg yàlla ñoroon doon toog añ bu ñëw xam nga mu def xam nga lekk nii xam nga nekkaaw ñu parce que y des nombre de personnes te mooy loolu. nee na ab nekkin bu jéggi dayoo moo fa am surpeuplement itam moom ndaw mi nee na du mës a fàtte jaar-jaaram ca kaso bu rëbës wante itam xaritam boobu di Cheikh njaay mi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam ci xew-xew yi amoon ca prison bu rëbës ci fan yi ñu génn. Alassane Ba ñu sant la kii ngeen doon euh, seetaan léegi ci reportage bi tey jii ci suba euh, la bawoo ca kaso ba nekk ca euh, kaso bu Rëbës te itam mu nekkoon ca chambre 11 gannaaw mbir moom faam ak jafe-jafe yooyu mu junju tax na nag ñu caabi feete ginnaaw seen i jege ñaale am nañu ak njàqare ñu ngi sàkku rek ci nguur Sénégal mu xoolaat jafe yi wala itam nekk nu ñu caabi feete seen gannaaw bu ba noppi itam daal di tabaxaat rek yeneen bërëb ngir euh, lu ni mel bañ amati kuréel gi saytu nag àq ak yelleef ñu caabi féete gannaaw amal nañu ab euh, yóbbu nañu ab délégation ca kaso ba ngir nemmeeku mbir mi jaar yetu Fall Ababacar Camara ci ay leeral ab njàqare la àndal ginnaaw ba ñu yëgee jéye ba amoon ca rëbës ba ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ci chambre 11 mbokki ñi nga xam ne ñoom la caabi féyti ginnaaw ñëwoon ci bile prison di nemmeeku ñi fa ne ndax bile mbir tiital na leen lool. metti métti na trop franchement parler sa xol moom day toog dangay toog sa xol di naat nga yërëm leen xool soo ñëwee ba jàkkaarloo ak ñoom boo ñëwee visite sa yaram day daw. d'après écho yi ñu am nee nañu ñoom ca dañoon dëggante si biir dëggante yooyu nag ci la lii amee. sama frère moo fi nekk bu euh, mu fi nekkee ak léegi sa fait cinq ans. Euh, keroog nañ ko doon jugé bu ñu ko jugé en plus dañ ko doon dañ tey date cinq ans plus mu nekk dix ans tu vois métti na trop fii moom moom du fi ne moom mooy loolu. ginnaaw bu ñu yëgee li ni mel ñoom mbokk yi ni nelawatuñu ba yandoor fu ñu toll seen xel day nekk ci seen mbokk yi tëdd ci bile prison ci anam yoo xam ne neexul. effectivement dañ koy dund parce que tamit nga am sa parent boo xamante ne moo ngi nekk ci prison bi donc liberté bi xañ nañ ko ko yow mi nekk ci biti am nga liberté certes mais sa xel yëpp du jug ci moom. dama dégg ñu naan doon doon def ay bousculade par la suite si laa ñëw après dem bu may indi añ ma xool laajte ñu ne ma problème bi. dafa xat en plus bousculade nañ fa doon def te or que ne ñu ne ventilo moom problème ventilo bi. waaw daf may faral di expliquer wax dëgg yàlla euh, nee na euh, mi ngi ci jàmmam. wante loolu rek la mën a wax. mais ñi ngeen xamante ne ñoo nekk ci yeneen chambre ay 10 11 ay 3 1 yooyu noonu foofu y' trop de monde. ñoom nag ñuy ñaan état mu gëstuwaat xoolaat conditions yi nga xam ne prisonniers yi noonu la ñuy nekkee. ministre de la justice na ñëw hmm? euh, le ministre Abdou Karim Fafana na ñëw. ñu defar prison yi. am na yeneen logement yu am nañ leen fa dugal ndax au moins mu am aération. seen chambre yi xat na tàng na te macha allah ne nii même sa néeg nii rek dafa tàng rek rawatina nag benn chambre plus de cinquante personnes bu fa nekk. ñu tabax ko ci atum 1929 bi la prison waroon dara lu toll ci juróom benn téeméeri détenu waaye tey ñu gis ni lim ba fa ne ëpp na ñaari junni ak juróom juróomi téeméer. Jariyatu Fall ñu sant la gërëm la wax ci leneen muy Guy Marius Sagna jàppati nañu ko tey ji ci suba la moom activiste bi nag da doon bokk rek ci ndaje mi nga xam ne liggéeykat yu PCC yi ca ñu dàq leen ñoo ko doon amal ca buntub Sonatel bi nekk ci VDN bi dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen jataayu xibaar. ñu wax ci euh, mbiram xalifa Sall xam ngeen ne nag daanaka ba mu nekkee ca kaso baak léegi mi ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ci ay bés juróom-ñeenti téeméeri guddi yi mu fanaan ca kaso ba tax na mu daal di xaatim ab bataaxal jagleel ko ay jege ñaaleem soppe xarit ak i am di jàmm di ci euh, itam jukkal euh, way juróom bu jigéen nag ni mu ko jàppale Barthélémy Dias nag la mu gis rek mooy mbir moomee daal maanaam kaso bi tey bi nu tey Khalifa Sall ci kaso nag ci démocratie fii ci Sénégal gàcce la ci la mu wax rek moom Barthélémy Dias ne njiitu réew bu Sénégal bu yóbboo mu noppalu te xam ne Khalifa Sall du mooy kii dem di ñaan dañ ci ànd ak Fatimata Touré ak Amadou baax ci ay leeral de reconnaissance la Khalifa Ababacar Sall am gannaaw rek bañ ko tëjee ci kaso bi lu toll ci 900 jours moom nag mu dal ci bind ab bataaxal jagleel ko képp ku nga xam ne rek ànd na moom gannaaw ba mu nekkee ci kaso bi. Khalifa Sall ngi nuyu bépp sympathisant am ay mbokkam ay am di jàmmam ñi nga xamante ni ñu ngi koy xeexal lu toll ni ñaari at ak lu topp ñi nga xamante ni bés bu nekk ñu ngi ñu fekk si foofu ca Rebeuss àllarba bu nekk lundi bu nekk je sais pas comment dire lundi bu nekk ñu ngi koy fekk si foofu ci rëbës donc euh, mu ngi leen di sant di leen gërëm waaye mi ngi sant di gërëm ñi nga xamante ni bés bu nekk ñi ngi koy ñaanal ñi nga xamante ni xamuñu leen sax kilifa aada yi kilifa diine yi société civile bi mu ngi sant ñëpp di leen gërëm te mu leen wan ni incha allah dara dara dara du soppi euh, sa volonté aujourd'hui de de de Barthélemy Diaz moom nag di lieutenant Khalifa Ababacar Sall jàpp ni sax 900 jours de détention arbitraire loolee nag nekku rek lu dul honte ci démocratie sénégalaise. 900 jours jaay doole 900 jours yabel 900 jours ñàkk gëm yàlla 900 jours saaga intelligence su sénégalais yi jours bundu xatal 900 jours xeex démocratie wu Sénégal. lu jëm nag ci déclaration président de la république Macky sàll ni moom rek moom saay bu koy soobee rek lay mën a def li nga xam ni moo di grâce jëmale ko ci xalifa sàll Barthélémy Dias nag lii la ko tontu. Sénégal amoon na président de la république wante tey Sénégal amatul président de la république man nag wuyu wala waga du ko tontu. wante nag ay mbokkam laa bëgg a waxal su ma baat ci kaw mbokk mi soppee mi ak xaritam yi su ma baat nag ci kaw nee naa bés bu ñu yàlla mayee ndam moom mii dina rëccoo dina rëccu lu tax mu nekkoon président au Sénégal. xarit jegeñaale collaborateur ñëpp daal di ñëwoon rek ngir daal di won Khalifa seen solidarité gannaaw rek ba mu defee 900 jours ci kaso bi ñoom nag nee nañ combat bi dina woy ba kii di seen mentor génn ci kaso bi. Fatimata Touré rapport euh, lu aju ci finance publique ki ñetti at yi nu génn fësal des na ko fësal ci weeru sàttumbar bi nu dëgmal euh, ki xamle li ni mel nag ci ndaje juróom fukk ak juróomeelu ndaje bu comité directeur bu euh, moom moo ko xamle rek ci wàllum finance publique moom nag mi jiite cour des comptes moom Mamadou Faye mi ngi rafetlu rek ñi nga xam ne ñoo magistrat yi ak moom gi nu moom seen bopp mu tase ak Cheikh Diop ak Lamine ñu teewlu ko bu njëkk bu Cour de comptes moom moo daal di xam li bile xibaar rapport yu 2016 2017 2018 nañ ko daal di fësal loolee nag du yàgg dara ñu ngi ko jàpp ci weer bu septembre. fii bay boobu damay dem xool euh, dernier rapport bi pour def bon nature incha allah mois de septembre bi ñëw dinañ ko présenter Sénégal pour wax lan lan si. lan lañu gis lan lañu war a yokk ak lan wala lan la war a bàyyi. ana lan moo tax organe de contrôle yi ñu benn yoon rapport ci atum 2015 ba suñu jonn yàlla tey Mamadou Faye li la ci toftal. bu waxee rek te yàlla tax ñu wax si ñun la mais li am solo mooy comme ni ma ko woon sama assemblée beneen retard dootul am kooku mën naa jël engagement devant vous jël na engagement dina génn kooku jël na engagement bi te incha allah billah moom mili di xam xamle ci lépp lu soxal wàllu indépendance yu magistrat yu cour des comptes fii ci réew bu Sénégal mu doon ab indépendance boo xamante ni rek da koy rafetlu. ñoon am nañ ko yenn dëkk yi fi ne rencontre organisation contre Afrique yëpp la dëkk yëpp boole bokkuñu doxalin bokkuñu doxalin waaw bokkuñu doxalin am na ñu xam ne fi may wax ak yow nekkuñu cour des comptes chambre des comptes lañu logé wu cour suprême am na ñu xam ne fi may wax ak yow ay. ñoom ñoom lañ consacré institution supérieure de contrôle alors que ay organe de contrôle administratif la heureusement euh, Union africaine nga xam ne moo ëmb Afrique yëpp mu ngi préparé benn résolution pour tàggat réew yëpp pour ñoom am indépendance. jëwriñ ji dénk wàllu koom fii ci réew bu Sénégal moom moo daal di présider cinquante cinquième réunion des institutions supérieures de contrôle africaines kile taxaw temb ngir daal di jàppale Cour de comptes ngir rek mu daal di amal lu ni Cheikh Diop ñu sant la gërëm la wax ci jàng ak jàngale ak uh, at uh, minu dëkkmal ci njàng ak njàngale waa uh, ñenn ci waa UDEN ñoom jàpp rek ne bu nu moytuwulee daal jafe-jafe dina am ñu ne nag nguur ak Sénégal ci boppam dafa war a xoolaat rek ab doxalinam Ardo Fall la ñuy teewlu kàddu yi mu ngi ko yëkkatee ca banlieue bu Ndakaaru ci teewaayu Salif Sow la ak Asmalik Diop. jéego yi ñu posé de bu ñu ci continuer moom euh, fa ñu demal la ñuy parce que nag daaw yëpp kenn yëngatuwul ñëpp dañoo taxaw bàyyi leen pour véritablement que ñu euh, defar wax ni ñu engagé woon revendication yi ñu jëloon euh, nga xam ne ñoom seen nañ ko protocole d'accord ñu respecté ko mais defuñu dara ba léegi euh, dafa am al vraiment rek lépp ay taxaw daanaka daal doxu kàkkatar la euh, fi mu ne boo seetloo rappel yi fay ñu ko boo seetloo validation c'est des problèmes boo seetlee reclassement c'est des problèmes DMC yi kenn waxatu ko donc véritable problème yi bari na boole ci nag enseignants yi nga xam ne yi aussi bon c'est des gesteurs adjoints instructeurs adjoints yi nga xam ne dañoo defan seen CAP la formation du plan lañ defan ñu def ko ñëw di toog deux ans trois ans kenn gisu leen xam nga kooku c'est piétiner déjà la carrière de l'enseignant ñu ngi yàq carrière jàngalekat yi donc yooyu véritablement war nañ ci jógaat parce que jàngalekat yi quand même euh, war nañ leen a jàppe neneen ñu wéyal xibaar diggu bëccëg gi wax ci leneen wax des ba tey ci jàng njàngale ak Cheikh Kanté mi nu tab rek ngir euh, mu teewal nguur ak Sénégal ci waxtaan yi euh, syndicaliste yi fas yéene amal seq ko ak euh, nguur gi moom Cheikh Kanté nag di jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci plan Sénégal émergent mbir mi nag ñu ngi ko jël gannaaw ba nu fi jëlee post ab premier ministre xam ngeen ne Mohamed Boun Abdallah Dionne moo doon doxal nguur gi ay tànkam euh, ci laaju nag ci waxtaan yooyu ndax euh, jamono jooju bu nekkoon Elimani jëwriñ euh, nguur ak Sénégal ñu dem nag ci wàllum koom ak euh, fii réew mi toll ak itam lu jëm ci wàllum natt yi dañoo seetlu euh, ne natt yooyee nag saa yu nu ko amalee soxna yi moo xam euh, sax góor ñi ci bokk ay jafe-jafe yu bari la leen di jural ndax ñàkk natt ak lu ni mel loolu nag banque mondiale dafa jug rekk ngir jàppale leen ci jël ay koppar yu daanaka ëpp juróom-ñaari téeméer ci ay millions ci phase bu njëkk nag mu aju rek ci fexe ba jàppale leen ca banlieue bu Ndakaaru ñu ne nag bari na waaye na natt baree noonu la jafe-jafe baree euh, dañ ci ànd ak gëstub euh, Salif Sow ak euh, Asmalik Diop. Ndey Bunte Cuun jaaykatu ndékki la juróomi at a ngi nii mu bokk ci natt nee na at bu nekk dina teggi trois cent mille di juróom benn fukki junni nee na ñoom seenu natt te nee na natt bi la da ko dimbali ci lu bari mooy tax ba mu mën a dajale dërëm dërëm yu muy am. dajale sa xaalis rek comme ñun ni ñuy jaayaatoo nii koo denc parce danga koy jaayaat. li ci des nga def ko ci kër gi li ci des nga de dugal ko ci natt bi journée bi wala juróomi fan yi li nga ci am nga dugal lenn li dugg na ci kër gi leen li nga denc ko muy natt ba at. waaye mbir mi du demee nii saa su ne léeg natt am coow teeri ji police ba sax tribunal bu fekkente ni am na nañu teggi bañ a teg wala kees ga ñi këpp ko. na ñoo xam dañuy yor ay natt ñii di di ñu fay. ñii di teggi di dem wala ñu am ay histoire wala ñu def ay police lu daal muñ ci daal natt yi moom loo yaakaar mi ngi ci. ay ay nangam. bëgg a ñëw ba koo fay du ko mën a fay xam nga pensaay loolu tamit ci kii daal ci risque kii bi daal lay bokk pensaay dañuy am problème boobu. ngir wàllum kaaraange ak leeraange ak it ñu fexe ba xaalis bi nga xamante ni mu ngi jaar ci loxo soxna yi leen ñu dugg ci ay loxo yu wóor li nga xamante ni moom mooy tontu nii war nañu koo def bañ dëppook jamono loolu gis-gisu ñi nga xamante ni seen xam-xam da cee màcc la ñoom sax nee ñu wàllum natt yi gis nañ ne mën nañ koo awale ci téléphone. ci tontu yi ñu wàllum natt yile gis nañ ne mun nañ koo awale ci téléphone. ci tontu yi amoon ci yi am ba tey ba xam ñu ngi ciy góorgóorlu mais mën nañ ko gën a améliorer euh, dañuy xëy di euh, yóbbante sa tontin nga jox sa doom bu dem yóbbul la nga yóbbu ko ci marché ba ngeen dajale ngoon gi jox ko seen kii mu denc leen ko lu nekk mën na ci am ndogal mun na ko cee fekk léegi ñooy leen léegi jaratu ngeen koy defee noonu dañ leen organiser ba nga xam ne yow jarul foo fi nga toog sa kër sa téléphone ngay jël boo jël sa téléphone envoyé sa xaalis sécurisation bu dee 1000 francs bu dee 2000 bu dee téeméer ñaar téeméer bu dee junni nga envoyé ko directement ci sa plateforme bi plateforme bu ko jëlee euh, garde ko bu ñu def tirage bi plateforme boo def tirage mu leer naññ. xeetu tontine di natt yu yees yi dëpp ak jamono loolu ñi nga xamante ni ñooy waa banque mondiale ñoom ñoo bëgg mu am ci àdduna bi yépp waa banque mondiale ci loola ngir mu am. dugal nañ ci lu tolloog 750 millions de francs CFA maanaam milliard bi ñaari téeméer ak juróom fukki millions moo ci manqué mott ñoom nee ñu balaa 2020 bëgg nañu bu néew ba néew juróom fukki junni soxna bokk ci ci diiwaanu Sénégal Salif ñu sant la gërëm la dem ci banlieue bu Ndakaaru ak taxi ak doxalin bi nguur gi jëloon mu aju ci wàllum tourisme bi loolu nag jamono ji ña nga cey def ab taxaw seetlu maire bu Jembereng la mu gis rek mooy doxalin boobee tax na rek lu jëm ci wàllum tourisme foofee gën a suqaliku dellu si war na itam eh, ci jafe-jafe yi ñuy dund ci biir Benno Bokk Yaakaar ak naka la ñuy def bu indi ci saafara ñu teewlu maire ab Jembereng kaddu yi mi ngi ko dénk bu Diassi ma ñu toogal ca Ziguinchor ko président bu mu ñëwee man ci maire commune de Diembéring laa bokk waaye yéen ñëpp xam ngeen ni président dafa décréter la Casamance comme étant la zone spéciale d'intérêt touristique loolu lu muy tekki mooy désormais képp ku bëgg a ñëw pour investir ci wàllu tourisme fii ci Casamance naturel boo fi ñëwee la ka dalee fii Ziguinchor Kolda Sédhiou état jéggal na la lempo ba 10 ans daf lay jéggal l'impôt pour que nga def ay investissement kooku yéene bu baax la kooku dañu jàpp ne atu la. Euh, à côté am na ay jafe-jafe yi nga xamante ni ñun euh, ñu ngi koy jànkonteel bu ci gën a mag mooy ñàkk déggoo bi nga xamante ni moom moo am suñu biir nañ ko wax te de bu gisee fii ñu amoon résultat yi nga xamante ni moom lañ fikki woon parce que. Euh, élection rek mooy euh, natt la force d'un parti politique wala ci coalition ci gox bu nekk c'est parce que tout simplement dañu déggoowuloon dañoo déggoowuloon entre les ñu des ca bët Saalum réew mi doxantu ba Kaabada ak juróom fukk ak ñaari gox yi fasantikoo yi ko seq amal na njub ndaje dellu si ci jafe-jafe yi ñuy dund bokk na ca ñàkkub kuran wérgu yaram ga sooxe askan wi ne dañ leen a war a jàppale jaarale ko ci mbay mi ndax ngune yi bàyyi mbëkk mi ñuy bu bakkan di res ci géej ñu dem ca diwaan ba fekki fa Bakary Konté Saare Mamadi ak 51 yeneen village yi nekk ci commune bu Tànkon ñoom nag ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yi tar village yooyu dugg fa lu jafe la ndax yoon yi nu ñu yàqoo pour di dëkk bi yoon bi baaxut surtout état bi moom état bi yoon bi baaxut te lu ñuy war a béyee foofu ci tool bi pour génnee ko ba mu egg si talibe bi loolu def ñu may jafe-jafe bu fekkente ne am nga malade malaat pour nga yóbbu ko foofu ci feneen dañuy si sonn carrément dañ si sonn carrément. dëkk kii di ñaawlu ñu ñu amul électricité. surtout ñun suñu dëkk bi euh, forage bi nga xam ne moom moom lañ gas foofu panneau salaire lañ fa monté te bu ñu amee on courant du ñu am jafe-jafe affaire ndox état bi moom bu ñu amoon courant moom ak yoon def def di mbale noonu. Kabada mu ngi am jafe-jafe yu rëy première fois amuñu ay yoon deuxième fois amuñu ay hôpital troisième fois courant waaw quatrième fois. ñun euh, école yi xaw nañu manqué. ndaw yu bëri nekk ci commune bu Tànkong ñoom nag dañuy daal di dugg ci gaal yi pour dem bitim réew mu am ñu am ñu bëri ñoo xamante ne ñi faatu ci ndox yi. dañoo war a liggéey te Kabadaaf am na espace am nañu suuf yaatu na ma fas yéene daggatoo lu mel ni vingt hectares tey maa ngi tolloo ci trente hectare yoo xam ne maa ngi fas yéene jeunesse bi nañ ñëw na dak ñëw Prodac nañu ñëw jàppale ndax ñun Kabadaaf am nañu espace. am nañu suuf suuf si naat na waaye problème ndox ak problème jumtukaay maanaam doole moo ñu manqué ci laa tàmbale boto ñaari forage bi nag fas yéene ci tool yi ndaw yi kontaan nañ ci lool ñu fas yéene daan seen dooleem ndax moo gën ñuy dem ci gaal yi di rey seen bopp ci gaal yi naan tukki tukki tukki tukki te bu ñu tukkee dañuy liggéey bu ñu toogee dañuy liggéey kon suñu amee ku leen jàppal ñu liggéey dinañ jël. population yooyu nekk ci commune bu Tànkoondine dañu bugg nguur gi daal indil benn dàkk maanaam domaine agricole communautaire loolu nag pour mën a fixer ndaw yi ñu bañ a dugg ci gaal yi. ñu wax ci leneen muy julli géej ga ñu amal ca jàmmalaay di fàttaliku julli gi xaadimu rasul julli woon ci géej ba nu koy yóbbu exil ca Gabon ñu ne ana moo tax ñu daal di taamu euh, plage wala boog tefesu jàmmalaay tontu li ak ay satu pay ci gëstu bi doxantu na fa ci gox gi nag ñuy waxee jamalay ci wetu plage bi fa la ñu nar a commémorer vingt cinquième édition bi nga xamante ne mooy bu julli géej gi li ñu bëggoon xam nag mooy symbolique bu site bile. dana mën a bokk ci décor bi parce que boo boo ko defee foo xam ni amul géej gi tamit nit ñi euh, maanaam dana du ñu sentir ne euh, am na euh, loo xam ne lii moom moo aju ci ci ci ci jëf jooju. géej dafa mënuloon a ñàkk moo tax à plusieurs reprises. amoon na ay proposition ñu bëgg a délocaliser euh, def ko feneen waaye comité bi dafay wax ne mënuñu mënuñu am ci ndakaaru place boo xam ne bii dana yaatoon ñi ba pare ni ñu mën ko julli ci weti géej gi ci jàmm ak salaam. beneen laaj nag sampu fan la Cheikh Ahmadou Bamba defe woon li nga xamante ne. muy julli ñaari rakka yi. li ñu ci dégg rek li ñu ci for moom mooy euh, buy am fu jege fu ñu ko njorte dañ yaakaar ne booru mbuur la am na sax waa mbuur yu koy yuy événement bi ndax ñoom jàpp nañ ne ci wet googu lañ ko lañ la ko defee. waaye amuñ ci daal loo xam ne lii maanaam mbind yi ñëw leral nañ exactement ci ban boo koy méngale ci suuf si. ba fan la féete waaye mbuur daal lañu ci tuddagum waaye nekkul loo xam ne lii lu wër la loo xam ne kenn mënu kenn kenn. en attendant nag mbir yi di gën a leer kuréel gi nga xamante ne moo yore julli géej gi ak autorité yi ñoom ñi ngi def seen kéemtalaay kattan gi rek. lépp jar yoon. ne la nga xam ne moom lañ fi waxoon ca CRD ba jël nañu jël jëloon fa engagement ñu ngi koy respecté ba néga ni te nañ yaakaar fi lekk euh, julli gi incha allah lépp dina yemb ba nit yi euh, ñëw ci jàmm dellu ci jàmm incha allah. ñaar fukki fan jàpp ñaax fukki fan ak benn ci weeru septembre nag recommémorer li nga xamante ne mooy julli gi fii si Diamalaye 25e édition. Aïssatou Paye yegg si nañ ci fonk bu mu julli ci kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. Babacar Mané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 ñuy nemmeeku ci réew mi mi mi ne Sonko li ko sonal moo di dafa bëgg a doon kut kaa kut njiital opposition bi te jàpp na ne ak xamade akuk sës moo ko ko mën may ma may ci li nekk ci Vox Populi journal bi dafa xëy sol aw dàllam dugg dëkk bi wax ñu ndakaaru ni mu salteeg ni mu xayedee ay égout yu amuti kubéer foo xool ndox